auzu minel minal sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim mbooloo mi kon nu bëggu déglu madame Mbacké Bismillah. auzu billaahi minal sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim monsieur le maire de la commune de Fann Point Amitié monsieur Pala Samb maa ngi nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu invité yi nekk fii yëpp conseillers municipaux yi délégués de quartier yi suñu yaay ajaratu Anta Niang Touré mu baax mi ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu association yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañ wii suñu ndax euh, woote niñ li wii si la yombul waaye nag yow monsieur le maire boo wootee faw nit ñi ñëw ndax. Euh, waa dañ leen di ñaan na ngeen déglu wax dafa metti de.

ma yow bu sama doom mu jàng mësuma la demandé benn benn benn aide mësuma la ko def waaye dama la jàpp ngir sa jikko ak sëñ Tuubaa mi ñu boole. ngay nit ku baax ku fonk doomu aadama ku yëg doomu aadama xam naa ne tey ko ku ma gis may wax fii dina ko jaaxal waaye nag lu ko jar moo ko jar. ñaanal yàlla mairie bii yàll nga ci toog ba doyal jox keneen. su loolu weesoo maa ngi dem ci sama mbokk jigéen ñi ndax.

di sant yàlla di julli ci Mouhamed di ñaan yàlla suñu jataay bii yàlla bu doon suñu mu mujjub jataay di ñaanal koo xam ne nag euh, monsieur le maire nga xam ne ne Sicap boolewuma ak moom bi ma nekkee tu tànk papa laa ko wax. waaye ñu dégloo ñu mu nekk sama nekk sama jëkkër nekk sama càmmiñ nekk sama mbokk Baay Faal. ñu daan daje ci kër Cheikh Abdourahmane Tilala mu doon nit ku baax xam nga dañ naan nag am na loo xam ne du sens mérite la lii du sens mérite la monsieur le maire yal na la yàlla defal jàmm fi nga bëgg a yegg yaa ko xam yal na ko suñu borom yeggale. amiin ndax lii nga def cuune mënu ko nekk ci commune bi woo say jigéenu commune ne danga leen di teral. loolu ne cuune mënu ko déedéet mënoon nga ko bañ a def parce que kenn ku ci nekk peut-être am na ci looy yëngu waaye nga woo leen bëgg goo leen bëgg nga woo leen ne danga leen di teral kon yal la yàlla teral amiin yaa xam li nga bëgg yal na la ko suñu borom jotale ci barke yonent bi ci barke Cheikh Ibrahima mi nga yaakaar yàlla mun na ko yal na ko yàlla def kon sama mbokk jigéen yi monsieur le maire def na devoir am ñun ñoo ci des nañ def suñu devoir te suñu devoir mooy lan parce que ki la woo ne la kaay ma jox la nga liggéey kooku desalu la sa dara desalu la dara kon donc lim ñuy jox mu néew mu bari kenn ku ci nekk na nga góorgóorlu ba mu ful parce que donte 1000 francs la boo ci jëmbatee sa sa ful la suñu borom ful ko kon nañu la ba nga xam ne li ñu monsieur le maire di jox nañ ko respecté nañ ko nañ ci def suñu ful la ba nga xam ne ne bu déwénee si daaw buñ fi dajee kenn ku ci nekk daan na la ñu musal maire joxoon ci la ñu réagir lii ak lii ak lii yàlla mën na ko yàlla nañu ko defal mooy nuyuwaat tamit sama jigéen euh, présidente yi fi toog di jiital euh, madame Mbacke di jiital Aïssatou maa ngi nuyu yéen ñëpp ndax macha allah macha allah damaa ñëw ngeen yaatal ma ndax heure bii daaw bi ngeen koy def néew ma fi mais ren yéen a ma woo yaatal ma ba pare jox ma ci ay responsabilité kon yàlla na leen yàlla fay yalla bu mu don sen mu djub jotaay ci barke yonenti bi monsieur le maire merci beaucoup alaaji Malick yàpp bëri na lay lay jëte yi riir si kan la na mbër Seexu Tijaan ku soppal Sëriñ Babacar sa loxo ca kaw ku soppal Sëriñ Babacar sa loxo ca kaw ku soppal Sëriñ Babacar sa loxo ca kaw ku soppal bismillaahi rahmaani rahim ñu déglu ñu déglu tuuti gannaaw ba ma santee yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa maa ngi nuyu monsieur le maire di nuyu association yi fi nekk yëpp fann point amitié di nuyu sunu marraine bu baax boobu maîtresse ba gannaaw bu yàlla wéyee nag yontu yàlla Mouhamed yow monsieur maire ñun dañ lay gërëm di la sant. macha lay gërëm di la ndax xame bi yàgg na yàggul ndax ñun dañu am sunu association toog sunu ruxu rek di liggéey barki dem boo Ndiaye ba ñu recevoir nga ni yéen a ngi def waaye dama bëgg ngeen gën a dolli leen maa bëgg ngeen gën a dëgër gën a yegg fi nit ñi di yegg woo ñu ñu ñëw nga ni ñëw leen ngeen dugal seen këyit damay financé ngeen bokk ci loolu ku bon mënu ko ku soxor mënu ko te bu la neexoon nga bañ ñoo faale wala bañ ñu recevoir nga bañ ñoo ubbi sa buntu bañ ñoo ubbi sa kanam waaye sama góor gu baax ga dani nit moom nit ay mbokkam te bëgg koo gis rek yéeg a koy fay ñun nag ñu sa ginnaaw te di ñaan yàlla lii nga ñu jox yàlla nañ ko yàlla fulal ba fa ñu bëgg mu yegg fa yàlla na ko yàlla yeggaleeg jàmm ak salaam. amiin lii ngay joxe tamit bu nag ne siy déwénee yàlla na ko yàlla yokkal ba mu ëpp lu kawe sa njort ci bàkkeem ci yàlla Muhammad. amiin ñun nag ñu ngi lay gërëm bu baax di la remercier ñu ngi lay gërëm bu baax di la remercier ñun waa Femme Émergence. la ñu jox kàddu gi. waaw ne bii borom kalabaas torodo samba ngaari jammaare sama torodo jallo ay sata jallo jallo jallo jàmm di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant góor ak jigéen mag ndaw foog naa ni wax bi dina gàtt parce que guddi na ba pare te dafa amoon chronogramme boo xam ne def nañ ko donc remerciement yi foog naa wax nañ ko ba pare mais monsieur le maire il ma remercier la remercier sa conseil municipal remercier mbooloo mi toog yëpp topp sa gannaaw maîtresse Dieynaba maa ngi nuyu euh, tey nag li may wax du bari Euh, dañ ñu woo ci ay financement muy deuxième édition daaw la 8 mars nga am financement boo defoon ni sans distinction politique tey jii damay woo jigéen ñi ci développement foog naa ci développement nga ñu woo nga ñëwaat nii encore muy deuxième édition nga ni woo naa jigéen ñi sans distinction politique dama bëgg sama jigéen ñi commune ñëpp liggéey ñëpp taxawal ay société taxawal ay entreprise

yoo xam ni tey jii bu ñu demee suñu biir kër dinañ mën a jàppale njaboot gi jàppale suñu ay borom jàppale képp koo xam ni tey jii war nga mën a aller de l'avant kon nag man foog naa nee naa leen euh, wax ji euh, du ma du ma du ma jeexal te nuyu ma taa Anta Niang suñu marraine fédération parce que depuis ñu créé ko ba léegi taa Anta ñuy gunge ci gungin boo xam ne macha allah gungin bu rafet rafet rafet

tabarkal ci la bok kok moy kan ajaante ñu turu mu bax mi on subillahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmaani rahim suñu borom negi ni daw garmi fi lañu monsieur le maire wo décoré ñu honoré ñu mom bala mu ñu jox dara sax dafa tan ñi ci gëna jambar ñi ci gën a nekk ay liggéeykat décorer leen honorer leen léegi nii daw man ci ñimu décorer ci la bok won ñu né nak man limay liggéey je suis élu maire de la commune de Fann E par la grâce de Dieu yalla ko nangu yalla ko tudd population yi wotel ko ñu fal ko ñu nangu ko ñok mom ñoo bok élection yi man dafa geesu fal ma concert spécial ñëpp ànd ci jox ma sama cër ci commune bi bu ñu toogee conseiller municipal lu ñu wax mu ne sama yaay ngi nii sama yaay booy paala koo sagal mu sagal koo yéeg mu yéeg la lu baax la ko yal na la yàlla fay ameeloo ak kenn jàmm rek nga séq ñun nag amuñu lu dul jigéen ñi gar mi wax na ko depuis les débuts des indépendances suñu métier assistant sociale yi ñuy jàng diplômé d'état ci ay école formé les nekk pionnière du travail social fu ñuy terale jigéen dañ cay kontaan suñu xol sedd lii ngay def dëgg la ci yow lii nga def daaw góorgóorlu ba doublé ko defaat ko ren dama ne paa la yal fay may encourager fédération par sa ay Aïssatou Diallo ak tout le bureau seen liggéey rafet na déggoo ngeen ànd ngeen di encourager képp ku am calebasse ci commune bi calebasse yi law na ñu ngi ci développement bëgg nañ liggéey suñu commune bëgg nañ liggéey suñu réew yow nag lii nga def moo ñuy permettre loolu ñu bëgg a def ñu def ko parce que bu ñu bëggee liggéey te amuñu financement du sotti yow nag def nga ci sa wàll ñu ngi lay gërëm di la sant di nuyu mbooloo mi fi toog yépp l'honorable madame le député sama doom sama xarit maa ngi lay nuyu di nuyu ñoom professeur Soxna Diouf di nuyu tous les yi nekk ci fii di nuyu présidente de groupement yi yépp di leen sargal di leen ñaanal wax ne réew mi ñoo ko bokk nañ góorgóorlu fa ñu bëgg a yegg ci kàttanu yàlla ñun dañ ci war a def suñu loxo. gannaaw bu ma sante yàlla julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa salaam sang-sang yi maa ngi nuyu sama jumeau Pala soo ma soxlaa 4 heures du matin sax xam nga ne dinaa ñëw ndax yow xam nga lan la ñu bokk dañu bokk lu sore kon nag maa ngi lay gërëm ndax lii yombul de de de joxe financement yombul kon nag yal na la ko yàlla may. yàlla nga yàlla may la nga toog si commune bi ba mu sàppi la nga am yeneen doom bi tànk yu raw meer di loolu laa koy ñaanal di ñaanal itam sama mbokku jigéen ñi ndax bu ma taxawee fii di wax lenn rek laay wax ndax fekk nañu sama démb bi may ñëw si commune bi aw ma fi titre foncier damaa loué te macha allah maa ngi sama ñeenti titre foncier yi ma moom def ko ay école kon nag su ñu waxee liggéey nit ki bu buggee liggéey rek dina liggéey konte nag buñ la joxee mille francs sax xamal ne ne boo ko tegee taabal di jaay daqaar te kenn cafu si di ñam bu yàggee daqaar ba dina jur leneen merci beaucoup kon nag dama leen di ñaan rek liñ leen di jox boo leen ko gëmee dina nekk ay millions ba nekk ay milliards ñu ñaanal ki nga xamante ne moo am initiative bi di ko génn di ko joxe yàlla may ko gudd fan ak wër ak wërle ba mu mun di joxe waat leneen wasalaam maa ngi leen di gërëm sama jigéen yi xàmmee nañ la ndax ñun nag macha allah bi ñu commencé développement ay xale yu ndaw lañu ndax man dañ maa jële woon ca Kolda wàccee ma kër Ndioro Ndiaye mu nekk ministre délégué chargé de la condition féminine kon nga war a xam ne xam naa développement kon Ndioro ba tey Aminata Ndiaye ji ci Ndeye Soli Diop Dieng maa ngi ci développement kon alhamdulilah kon yow xàmmee naa la monsieur le maire yow ak Paa la yéen a mel yéen nuroo ay mbir ba nga nekkee meeru Fass Gueule Tapée ñun xàmmee nañ la ci ràññee nañ la ci waaye màgg nañu alhamdulilah sant yàlla fi nga toog war nga fee toog maîtresse Dieynaba ba Anta Niang jigéenu waa Fass euh, Gueule euh, jigéenu waa Fann Point E conseil municipal bi secrétaire municipal bi bureau municipal bi yëpp ak cabinet maire délégué de quartier yi imam yi jërëjëf waa PAMECAS bu leen neexoon doo leen ko defee nii waaye ki ngeen di àndal pour liggéey ku bëgg liggéey la ku bëgg dëkkam la fii nag fii man duma fi gan man ak tonton dañoo yàgg politique ñu wàccee ma maison du parti ma am fukki at ak ñaar te président Abdou Diouf ma fa wàccee woon ak UNICEF UNICEF mooy Fonds des Nations Unies pour l'enfance ñu jëlee ma ca Kolda ba tey jii nag Pape Babacar Mbaye yal na ko yàlla yërëm géej mbaamulaan yal na ko yàlla yërëm yal na daagu aljanna si ñu fekk ko fa ñun ñëpp mu yar ma man paala mii nekk sama pap ndax xalifa Sall moo ko ne paala kii sama doom la waaye sa doom la doomu ñëpp la waaye man maa ko jël teg ko ci sa loxo kon fii campagne naa fi ba paala nekk mais ma continuer ba tey jii ba am fi doom Adja Ndaw mooy sama doom fii te waa kër gaa ma ko sedd kon taxawaay moo tax ñu sedd ma ko ca waa kër ga ne yow Adja yow lañ la sédd balança